Papa Makhtar Fall, ici secrétaire national adjoint chargé de la prévention du parti, membre du comité directeur, euh, secrétaire général de la Fédération départementale de kafri waaw tey boo gisee ndaje bi tey euh, ñu woote ko le frère Saliou Dieng woote ko euh, di le secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien Euh, dafa am histoire boo xam ne nii il faut ñu xam ko ci diggante les mouvements de soutien du président Karim et le parti démocratique sénégalais tey jii euh, mouvement de soutien yi ngeen gis fii ba parti bi daanee en 2012 ñoom ñoo taxaw sécuriser le parti des gens yoo xam ne nii bëgguñu woon injustice xam nañ ne le président Karim est victime d'acharnement ñu créer des mouvements de soutien pour le soutenir loolu moo tax tey ampleur boobu mu am tey dayo boobu mu am tey moo tax Karim Wade ci kaso bi mu nekk mu am motivation am motivation d'aller de la l'avant am motivation diriger ce pays parce que ay la yéen xam na ne am na ay nit ay doomu aadama yu taxaw pour xeex injustice dans ce pays am yaakaar Saliou Dieng bu ooyee mouvement de soutien yi xam na ne tey keroog ba nga xamee ne nii parti bi am na ay ay ay responsable yu fi nekkoon nekk ay ministre nekk ay directeur général bugg jël parti bi bugg ko jaay Macky Sall les mouvements de soutien ñoo taxaw ne du fi amee sécuriser le parti ba tey lii am parti bi tey nous avons un parti stable c'est grâce au mouvement de soutien nu avons un parti bien organisé c'est grâce au mouvement de soutien du président Karim kon ñii tey bu ñu leen ooyee salle bi dana fees tey tey da ngeen fi gis ab délégation yi jugee nañ Fatick délégation yi jugee nañ Kolda ju jugee Louga jugee Tivaouane fépp ci Sénégal tey ñëw nañ fii pour feddali seen coloré ci président Karim Meïssa Wade Malgré son absence dans ce pays, il reste aujourd'hui un leader charismatique qui draine le monde. xam nga aujourd'hui ñun euh, waxoon nañ ko le PDS depuis 2019 notre seul candidat c'est le président Karim Meïssa Wade mooy suñu candidat en 2024 ku nekk xam na ne CREI ba koy Macky Sall di créer vingt cinq dignitaires du parti du régime du président Abdoulaye Wade la convoqué woon mais finalement président Karim rek la ci condamné il a requis des commissions rogatoires partout dans le monde Macky Sall dem na fuyee na terre et ciel mënul am benn yota boo xam ne ni Karim Wade jàpp nañ ko pour détournement de deniers publics Karim Wade kenn tëju ko ngir détournement de deniers publics dañ ko tëj ngir enregistrement illicite il jouit de ses droits civiques et politiques Sénégal nag léegi il faut mu leer ñun ñu fi ñëw tey retour Karim Wade nekkul nekkul suñu sentiment d'inquiétude il va venir en 2024 Macky Sall na pare je vous le dis et je vous le répète na pare Karim Wade sera candidat ci élection présidentielle 2024 wala moom barki Seydina Mohamed du fanaan palais je vous le dis et je le répète nous sommes bien organisés lu xewoon lu xewoon en deux mille dix neuf Macky Sall dootul xewati en deux mille vingt quatre na nga ko dégg bu baax ñu la léegi xam nañ yoon bi xam nañ fu fu góom bi fu muy xasanee ñun xam nañ ko ça ne se passera plus dans ce pays fii ñun deux mille vingt quatre le PDS aura un candidat et notre candidat c'est le président Karim Meïssa Wade. comme ñu ngi siyaar di nuyu mbokk auditeurs yi auditrices yi ñuy seetaan yëpp di nuyu vraiment suñu caméraman yi ak suñu journalistes yi. avant tout aussi balaa may présenté wu sax damay wax di jaale Sénégal gépp particulièrement au journalistes ou bien aux médias laay wax parce que li xew tiis la boo xamante ni vraiment ñun ñëpp méttul nañ ko peut-être nag euh, jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mais yàlla na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana yàlla na leen fa leen fa ñu yàlla na leen gënal fi ñu jógee euh, di présenté wu nag di wax man la Diagne Wadis depuis Kaolack euh, responsable politique le chargé de la communication Euh, vraiment di nuyu ñëpp di jaar ñëpp di nuyu suñu président Matar euh, suñu secrétaire général Ibrahima Kanté di taxaw di nuyu aussi suñu collègues yi ñu àndal ku mel ni Mamour Touré aussi que Khadim Fall. Euh, vraiment di wax ni rek tey bëgg nañ kontaan nañ ci li nga xamante ni moom mooy teewaay bi ñu am fii nii nga xamante ni suñu responsable le chargé des structures et des mouvements de soutien muy monsieur Saliou Dieng moom moo convoqué tous les carimis pour ñu ñëw teew si pour ñu waxtaan. kon loolu ñu ngi ciy xaar vraiment ay nouvelle ak ay information yu yu yu rafet yu palpable yoo xamante ni vraiment euh, dara duñu ci bett yaakaar naa waaw. d'accord euh, bon Kaolack euh, démb rek maa ngi def benn contre attaque ci moom ci média yi ba de yëpp sax jàllale nañ ko ci nit koo xamante ni da nga ni njiitu réew nga. boole kook di digee te doo jëfee te loolu aussi amul sens euh, nit ki moom booy digee dafa war a fekk ngay jëfee parce que digee jëfee moo ci war a topp mais ki nga xamante ne depuis bi mu yéegee ak léegi li mu njëkk a def man li may wax toujours li may naqari ci Kaolackois ci des fois niñ koy votelee sax dafa man naqari ba ci 2019 bi parce que munoo nga toog premier acte bi nga def mooy nga toxal sunu port yóbbu ko funjuñ pour dekkil Fatick loolu la defoon malgré que dekkilul Fatick parce que bu ko defoon sax xëy na ñu ne euh, euh, région am la dekkil mais malgré que dekkilul Fatick ba pare gën a rey Kaolack wëlbatiku Kaolack waay ñenn ñi dem jox ko loxo loolu naqari na ma. deuxième fois mooy 2019 même promesse électorale yi mu defoon benn benn point réaliser wu ko ci boo taxawee nga ni port bi mu waxoon da koy draguer ba nga xamante ne bateau yu mag yi dinañ fa mën a costé defu ko. deuxième chose mooy université Cheikh Al Islam bi woon. defu ko xeer ba mu tegu jotoon teg moom seey na boobu moom waxatuñ ko moom. moom xam na ni bu teelu te sede li koy xaar lu méttee méttee métti lay doon parce que jamono ji fi mu toll nii di Sénégal amul fooy laal te méttiwut amul benn secteur bu neex bu doon sax am na fu neex am fu naqari nga mën a wax ni mun ta xalangu dajul suuf mais fenn neexut fenn neexut ba ci taalibe yi nga xamante ne dañ la daan garder yalwaan ñoom seen bopp centre nañ ni affaire bi neexut muy bépp secteur bépp secteur. man je suis journaliste je suis caméraman ma taxawoon fii tey li ngeen di def mën naa ko mais je sais que ni affaire bi jàllul fépp a métti fépp moo métti kon dama bëgg rek moom na xam ni dafa jeexal yàlla nag bu la joxee mbir nga xam ne da ko jox bu la koy jeexal yow sa bopp di nga xam ne mi ngi koy jeexal que ça soit nga nangu wala nga bañ bu nangoo jël bi dina yomb comme ni ko gars yi di waxee bu bañee day métti ci moom voilà merci beaucoup. Mor maa ngi jógee département Tivaouane commune Pire. maa ngi ñëw en tant que euh, responsable mouvement Sénégal ak Karim ma nekk coordinateur foofu mouvement Sénégal ak Karim nag mooy mouvement bi nga xam ni soxna Fatou Dieng moo ko jiite nekk fële Italie waaw ñu ciy liggéey wax dëgg yàlla euh, di déglu saal tamit parce que tamit li xam moom la yàlla dogal ak le li nga xam ni moom la moom la moom la wax ak euh, parce que la képp ko xam ne ngay liggéey la may si Karim Wade rek da ngay nangu kóoluteem ki nga xam ne jox na ko kóoluteem mu Moussa Saliou Dieng moo tax ñu jóge département Tivaouane ànd xale yu bari na xale ñu ngi ci biir ñoo wusi Saloum tey. dëgg ah, tey euh, yaa ngi jóge fi nga xamante ne mooy Tivaouane tey nan nga gisee liggéey bi nga xamante ne mooy euh, président Macky moo tax ñu jóg ñun ñëpp moo am mer gàddu la gàdd gàddu woon ñun suñuy saag la ñuy def ci suñu lépp nag pour war a fanaane fanaane pour mu jógee fi parce que Tivaouane Macky Sall li muy def lépp erreur yi muy def ak lépp Tivaouane defu fa dara dara dara moo tax xale yi jóg gisoo benn mag tey jii parce que mag ñi damay wax li ñu war a def def nañ ko de xeex na ne ba la président président Ablaye Wade euh, euh, dem pale liggéey Sénégal def loo xam ne kenn duut ko bi def kon ñun xale yi nag ñoo war a takku nag taxaw nag comme topp ci ginnaaw Saliou xeex pour le président Macky Karim Wade 2024 ñu yóbbu ko palais. Hmm. ok merci beaucoup